mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi si barab bu tedd bi di taaxu maam Cheikh Issa Diène Sandane Fall daalu jenn muy bis bu guddi gu màgg goo xam ne nag mboolem waa kuréel rabbi zina xelman Touba Daaru Diène ñoo koy jël ngir sante ko Serigne Saliou Mbacké yemoo ko dimanche le 31 décembre 2023 muy at bu jot mbooleem waa kuréel gi nag ànd seek mbooleemu kuréelu xas day nekk Ndane Fall si njiitalu fédération Cheikhoul Khadim am Amad Diagne waaye ànd seeg mboolem waa Daaru Jann sa kanam ak mboolem waa Daaru Jann ñu ngi nag sunu kanam ki nga xam ne mooy Baye Sidi Fidior mi nga xam ne moom mooy jëriñu kuréel jëriñu kuréel rabbi si na xel man waaye nekk se ki nga xam ne mooy sëñ Naar Fidior ki nga xam ne moom moo yore wàllu répétition yi kon Baye Sidi ñi ngi lay ziar baax di la jox sa wàccuwaay tey te di leen ñaanal liggéey bu am solo bi ngeen def waaye nag xam naa laaj bi ñu laaj mooy bis bi ngeen def lan mooy sabab li ak ñan ñoo ko taxaw auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku si nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaanal Cheikh mu Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér ginnaaw bi ñu sant yàlla ba pare sant yeneen bi julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant suñuy waajur ñoom ñi nga xamante ne si ñoo ñu wan sëriñ bi wan ñu lépp sëriñ bi la kon ñu ngi leen di delloowaat cant bu baax a baax a baax bis bi Mamadou li ko sabab mooy ñaanal Serigne Saliou Mbacke jubluñ ci lenn lu dul loolu di ko sant bu baax ci defar gi nga xamante ne si defal na ko ndaw ñi ak uh, yéene ji nga xamante ne amoon na ko ci ndaw ñi te Serigne bi dimbaliñ ci bu baax a baax ban gis ci suñu bopp moo tax ñu delloowaat delloowaat Serigne bi njukkal di ko sant ci bis bi. bis bi loolu mooy sabab bi bis bi ñu ngi ko tàmbali 2008 ba ren ji 2023 di 16e bi. kon alhamdulilah santaat nañ ci suñu borom bu baax a baax a baax di ñaanaat mu gën ñoo kartanal ñu yàgg koo teewee at yu baree baree bari di ñaanal mbokki taalibe yi nga xamante ne si yëpp jàpp nañ ci bis bi ñu ànd ko ay soxna yoo xamante ne si tamit dañoo bokk ci daayira bi dëkk ci koñ bi ak ak ak ak dëkk bi yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te ñaanal leen tawféex bu baax a baax a baax suñu borom yokku leen te defal leen ay xéewal yu bëree bëri yàgg koo fekkee yàgg koo teewee barki borom Tuubaa ah kàddu yi am na solo lool leeral nga maanaam sabab bis bi waaye bëgg noon xam tamit bis bi maanaam nan ngeen koy dundee mu jàng alxuraan ak xasida ak noonu koy dundee ak yeneen mbokki taalibe yi ak tamit bis bi bëggoon noon xam tamit gis nañ ne am na wàccaay yi am solo yoon ci def ndax képp ku gis barab rek xam ne yéen waajale ngeen ko baax kon mbokki taalibe nan lañ koy waajale ak waa koñ bi tamit ñi nga xam ne waa Daaru Jenn nan lañ ko waajalee nan lañ ko yëgee. bi sabab bi li ñu ko waxee woon rek mooy maam ñaanal Serigne Saliou Mbacke bis bi tamit wàccaa wi euh, métti na méttiwul ndax boo gisee li tax euh, méttiwul am dañ koo doore ci ak ndaw ba ñuy door bis bi di ko def am dañ daan dem ba tàkkusaan jot rek ñu xalaat ne tey jii la bis bi ñu dajaloo euh, jël suñuy ñaq donte ñaar fukk la wala téeméer dajale ko togg ci kafe ñëw guddi gi dundal ko ba jàng ba sonn ay mindi ñu bàyyi dem ñibbi. ba jaag ñuy def noonu di ay dem dem ay ati at ba jaag ñu ni mën nañ koo fanaane di làmbul lu ay addi ay 2000 francs boole koo carte barkeelu dem ba nga xam te si maanaam euh, euh, xéwal yi nga xam te ne mu ngi toog juddoo juddoo ci ci bis bi ñu ngi toog ay xéwal di ko jox mbokki taalibe yi loolu lépp tamit ñu ngi ci ànd ak mbokki taalibe ñu ci jëf ay jëf yu am solo waaye jiital ci maanaam euh, membre yi nga xam te ñoo bokk ci daara bi ñu doon ay jàmbaar lool da ku ci nek yaangi ngi jaayante loo xamante ne si maanaam sa kartan àggu foofu waaye sa bëgg sëriñ bi rek mo waral lool kon ñu ngi santat yalla bu baax di ñaan mu gëna a mbokk talibey taalibe bu baax a baax ah jërëjëf Baye Sidi sha allah kàddu yi amna solo lool soxna yi nek daaru jenn ak goor yalla yi waye ñu xamna li ñu def si ndigalu ci Abdou Latif jenn khalifa maam Cheikh isa jenn diko ñaanal mu yag fi lool te ak Cheikh Abdou Salam jenn borom daal islam waye ñuy ki xamni moy seigneur sëñ naa fi joor di tout tànk moom yeneen kuréel gi kuréelu rabbi zine xilman moom moo ko yeneen di leen rappiteel sëñ naar ñu ngoon a xam maanaam kuréel gi nan lay demee ak noo leen doxalee ak noo leen waajale bis bi si wàllu répétition yi. asalaamaaleykum wa leen léegi ñu waxaan bés bu nekk amal nañ ci wàccaay solo mooy ay bés yu yu fasante ko bokk téye nañ ko wax du ko répété du ko defal ay répétition général ngir di ko waajalee bés am ci xas yoo xam ne nii dañ koo ngir ak bu ni rek si cantuk daaw gi lañ ko dala waajal jëmale ren ji incha allah fekk taxalis bu Baye Moustapha Diop référence Cheikh Ibrahima Diagne waaw muy programme boo xam ne dañ ko tënkoon ak lépp ma doon ko leeral ak yeneen yeneen yu bàcc am wàccaay bu am solo boo xam ne nii amal nañ ko ci bis bi maam di ñaan rek suñu borom defal ñu tawfeex ban mën koo yëkkati nañ ko bëggee waaw ah répétition yi nag maam def nañ ci yitte ju ju am solo ndax bis bi moom jaal nañ loolu ana sax bu ñu demee ci Baye Moussa moom dina ko gën a mën a leeral ndax mu doon jiite jamono jamono jooju mën na jiite répétition bi Ah, jërëjëf sëñ Naar ñu lay sant baax si taxawaay bu am solo bi Baye Moussa Fidior mii moom mooy doon taxaw répétition yi xam naa Baye Moussa na la jox kàddu gi rek si wàccaayu bis bi noo ko doon répétition yi yëpp noo ko gisee ak ban taxawaay nga si amoon bisimilah Baye Moussa. Ah, waaw ngi ne kenn ku nekk ci turam waaw di fas yéene tontu ci laaj bi nga xam ne moom la ñu sëñ Modou Ba laaj lu jëm ci maanaam wàccaayu répétition yi ni ko doon defee bi cant gi jub see waaw maanaam bi cant gi jub see nag ak coppite am na ci lu jëm ci wàllu répétition yi ndax dañu taxawal li nga xam ne moom la ñuy wax ay répétition générale daanaka mën naa ni une semaine avant cant gi euh, mën naa ni jël nañ ci lu mat 4 wala cinq jours yoo xam ne. chaque jour dañuy commencer répétition yi à partir de vingt deux heures jëm ba parfois dañuy dem ba minuit parfois aussi ñu dem ba une heure matin waaw répétition yi daal noonu lañ noonu lañ ko doonu euh, waajale lu jëm ci wàllu cant gi waaw ay répétition générale daal lañ doon taxawal daanaka lu mat quatre jëm cinq jours avant cant gi chaque jour dañuy commencer vingt de heures dem ba minuit wala sax parfois ñu dem ba une heure du matin waaw ah, te li si ëpp nag dañ ko doon jagleel ay révision rek jëm ci wàcc maanaam daaj yi nga xam ne moom lañ war a prester si cant gi waaw ci loolu daal ci tënk noonu lañ doon waajalee lu jëm ci wàllu répétition yi. waaw jërëjëf Baye Moussa Fidior ñu ngi lay rafetlu baax taxawaay bi am solo macha allah si répétition yi ndax yéen bokk ngeen si yi gën a màgg si ndaan kon nag na leen ñaanal suñu mbooloo leen tawfeex Baye Sidi xam naa ñu ngi jàkkaarloog tey di def liggéey bu am solo si si yoonu Sëñ Tuubaa bi rawati nag si yoonu maanaam si daara ji fédération bi yëpp muy fulku bi ni jàng si daara ji yëpp moom Sëñ Alaaji moom moo koy moo koy wane waaye Baye Sidi xam ngeen ni bis bi di 31 décembre ñu bari am nañ si leen daan nekk parce que xale yi ngay gis ak jigéen ñi ñëpp musaa la jot ñu ngi si leneen waaye nag yéen suñu borom maanaam dafa leen taw feex ngeen def cadd gu mel nii kon lii ab soññ la yaakaar naa ni si képp koo xam ne rek yaa ngi nekk ndànd ndax ñu bari seen xel daal nekk si leneen waaye bu leen yàlla dimbalee ngeen nekk ay tuut tànk woote lii tawféex la yaakaar naa. waaw sëñ Mamadou am bis bi boo gisee tawféex yim lamboo dafa bari lool ndax tawféex ji ci njëkk rek mooy ku nekk xam na ni bis bii maanaam bu musaan a agsi yëngu yi nga xam te ne daan am ci ci dëkk bi waaye lépp ci mbaaxuk sëriñ bi rek dimbali ñu. ban man ko di taxawee ci lu baax ba ci xëcc maanaam mboolem mbokki taalibe yi ak mboolem waa dëkk bi yëpp ba tey xam naa dëkk bi fi mu toll nii fu waay toll ci dëkk bi rek ak li ko wër yaa ngi dégg ay xasida di dégg alxuraan ci bis bi dara wëral ko lu dul mbaaxu sëriñ bi kon tawfeex yi nga xamante ne rek moo ci gën a euh, rëy maanaam jooju jooju moo ci gën a neex daal ñu ngi ciy santaat sëriñ bu baax di sant bu baax tamit si Tayssir TV sëñ Alaaji di ko ñaanal maanaam seenam bii dem ba doon ay télé maam mu tam tawfiq yi am tan am nañ ko ci dund sëñ Saliou defal ko tawfiq jot tamit mu dem ba yokk yokk go xam tan bu li bu amaté mu indi ay and ak équipe bu mag indi ay caméra ak indi yépp manam mu gëna yaatu doon and rek ñu ko ñaanal bu baax ci barki sëriñ jërëjëf Basili sëñ Alaaji jërëjëf kon liggéey baa ngi noonu comme ni mu ko waxee rek li ab soññe la waaye nag ñu santaat baax si Abdou Salam Dieng borom daal lislaam ndax liggéey bi yëpp moom la ndax bu ndee bay jàng xas de fii si Ndane Fall ay xale di ko jàng noonu la sàddee si Abdou Salam Dieng borom daal islam kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant baax di leen ñaanal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh